loola nag waral ñu sekk tey waxtaan ak euh, suñu maam Ousmane Sène Blay amati mbégte lool jàkkaarloo ak moom ci démb ak tey ndax yàlla def na fekkee na lu bari macha allah ñu koy ñaanal fan wu gudd ak wér euh, maam ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm ci démb ak tey. naa ngi lay fay di sant yàlla bu baax a baax a baax di dool li ko sant. di julli ak sëlmal ci Seydina Muhammad tey jii mooy premier jour premier jour am ci àddina di ñaanal sama ñaari waajur ñu xippee sa bal sàq Seydi Si di yeesal sama taalibe ak sama tarbiya sëriñ Babacar Sy yàlla na yàlla yokk leeram di sant yàlla bu baax nag di nuyu tëngéej di leen ñaanal jàmm ak salaam di nuyu it Sénégal di fi ñaan jàmm ak salaam di la nuyu yow Fatou Thiam Ngom sama wéttal nga su ma juumlee bii mooy suñu juróom wala juróom benn di daje bu si nekk nag macha allah ñu bari woo nañ ma parce que seen dégg lu ñu dégg loolu ñu xam lu musul xam kon maa ngi lay seen di la gërëm di nuyu sa patron Mbaye Diop di nuyu ñu ngi liggéeyal. jërëjëf seen ñun itam mbégte mu rëy la ñuy am saasu ne dajeek yow sekk ak yow waxtaan ndax bés bés eh, joti ñu jàng ci yow loo xam ni xamuñu ko woon. tey nag ni ma ko waxee violence ci politique la ñuy waxtaanee muy fitna dafa ñëwaat tey fësaat lool te ñu jëm ci ay élection tiitaange juddu ci ñu bari ndax ñu ngi laaj bu yëf tàmbalee léegi bu yeggee ci élection nu muy mel waaye nag ñu war a waxtaan ak yow ngir wane ni yàgg na fi. duguleet fitna di am ci politik waaye nag day baax itam ñu am ay yoon yoo xam ni danga ko joxoñ bu ñu ca jaaree xëy na jàmm rek mujj ci ndax lu ne xew na fii waaye nag jàmm rek moo ci mujj démb maam ànd nga ak Senghor ànd ak Mamadou Dia fitna ci politik lan nga ci jot a dund. xam nga fitna politique ñaar la. bu njëkk bi mooy moom sa bopp. ay jàmbur ñëw yilif nga dem ba fippu ne nañ génn xeex ak ñoom. yaa nga dégg Che Guevara di dégg Ibn Yobe Ibn Yobe surtout Cameroun Gamal Abdel Nasser Moubarak Jomo Kenyatta Nelson Mandela Indira Gandhi Nehru Ben Bella Ayit Ahmed Abdul Aziz Bouteflika c'est des combattants de la liberté il y a eu beaucoup d'hommes ak euh, général Giap ñooñu c'est des combattants de la liberté parce que sous tutelle alors tout cela comporte comme servitude humiliation léegi nag dañ dépassé boobu jamono dugal si jamono bu bees réew mi nag yàqu na te vingt deux janvier xaw ma vingt trois janvier bu nu lool yàlla jàpp si lool ak borom ñaan yu baax yi di fi gis loo musul gis mukk ci élection maa la ko wax. loo ciy ragal. beaucoup de ça. énormément de ça. tout le monde est candidat maire tout le monde. sans raison. tu n'as pas les moyens tu n'as pas les mais parce que coow li bari na rek am nga diplôme université tu es candidat. c'est à travers le Sénégal. te daawul demee noonu démb. déedéet bu njëkk mu risqué socialement kii kii présenté bi si wala Mbaye Jacques ak boo demee Ndar Ablaye Diop Mar ak Moustapha du Diouf boo demee Ziguinchor ñoom Carvalho boo demee Sédhiou Demba Koli ak Ibou Diallo Tëngéej gi nag lu bon bon am na quinze maires mais ce qui certain c'est que. il y aura beaucoup de parce qu'il reste semaine pour déposer les listes et quinze millions te it ñu bari duñu bokk wan nag dafa am élément yu bees yu tabbi si politique te mosu si bokk seen àddina yëpp mooy violence man nag faruma malgré que socialiste la kon maag Macky Sall ànd faruma duma woote it ba woote ma mon âge et ma santé ne me le permettent pas li ma loolu laa gëm attaqué wu ma kenn coowu kenn mais y a yoo xam ne su kilifa yi waxal ak ñoom kilifa diine kilifa aada yi ñuy taal réew mi si lim nag ay nit xaw ma di ngeen ko jàlle wala doo ko jàlle ku mel ni Sonko ku mel ni Barthélemy Dias ku mel ni Bamba Fall ku mel ni Maître ku mel ni mbay jaay ku mel ni la COJER le mouvement de jeune de parti APR. APR dañu ko dañuy def fii loo xam ne dina doonu nettali ba bés pénc ma comment nga peut concevoir Abdoulaye Diouf Sarr qui ministre de la de la santé dëkk Yoff il est candidat à la mairie de Dakar donc bu ko gañee la mairie de Yoff sera libre le plus acharné contre Abdoulaye Sarr il est de l'APR il est de Yoff ñoo bokk parti ñoom ñaar mu ne il est te la certitude si Ablaye Sarr est choisi pour être le maire de Dakar il sera plus maire de Yoff comment tu peux tu peux concevoir que que à Rufisque dégg naa sax baa ngay wax ak journée yu ne man dama jàppale Albé Albé Ndoye man jàppale wu kenn du ma jàpp xaw ma Albé Ndoye du ma ko jàppale ma ko jàppale kenn du ma woote mais il y a moins si ñi ma setseegum huit candidats te j'ai l'impression que les cinq ne verseront pas quinze millions wala bu nu verser quinze millions bu élection yi jeexee ñu am coow le 14 le 13 mars Ousmane Sonko a fait une déclaration boo xam ne képp koo defoon dans n'importe quel pays le 14 il y a eu 12 morts ñu jàpp la un la violence à la résistance à la désobéissance civique mu def ko le 13 le 14 il y a eu 12 morts il se promène encore gars ne bu kenn laal ñi ànd ak moom. loolu musul am ci politique. ah man loolu lu mel noonu musul am ci politique. musul am appel comme ça publiquement aux yeux au vu de tout tout le monde à la à la désobéissance je ne réponds pas à la convocation nationale je ne réponds pas au ministre de euh, euh, euh, à la gendarmerie musul am les gens ont le lendemain il y a eu 14 morts te maa ngi wax ne képp ku ànd ak Macky Sall ami

Guy Marius Sagna su ma doon mbokkam ak dinaa wax moom dox jàmm nga koy tàcc jël ko jël sa oto ko jël ko oto lépp nag Macky Sall la waaw moo ergosewul parteem du artu kumu neex nga jël rek télévision wala rajo bi attaquer un membre influent du parti la seta contre contre Aïssata Tall fu ñu ko teg Aïssata est une femme propre au figuré comme au propre def fu benn njaaxu compétente capable candidate à la présidence de la République sa affaire passeport yi ñëpp xam ne passeport yi ni mu demee te du tey hmm. man je dispose d'un passeport diplomate depuis 1960 et nous sommes nombreux dans ce cas-là comment comment tu, le, le président de la République n'est pas nommé il est élu au suffrage universel ay nit a koy fal waaw ay chefs religieux ay commerçant yi ñi koy jàppale di génn seen xaalis di ko dimbali bu soo wootee ñu joxe un million cinq cent mille cinq cent millions cinq cinq cent millions waaye ñu bu soxla passeport que du la ko jox prestige rek la du dara du prestige la te bu fekkoon ne amul visa d'entrée kon qu'est-ce que lu la ñuy passeport diplomatique wante waa waa waa waa APR ñoo jëkk a jóg attaque seeni xarit et de façon violente il y a le il y a le type de Ziguinchor le responsable de l'APR. Benoît li mu wax borom caxa day moytu borom baati neen borom baati neen it war na moytu nguur. su ma doon Macky dama koy dàq. Hmm. waaw waaw. nit day far. mi la il a dansé la samba. parce que it ña ña àndoon ak Abdou Diouf ànd ak Senghor ànd ak ñu ànd ak rek ñu su bari bu neexee ñu ñëw. bu tàngee ju daw léegi-léegi nga déglu euh, euh, euh, am mu kii baax l'ancien ministre des affaires étrangères Amadou Ba un homme sérieux xaw ma ko nag keroog ba ka ba ka di yedd yedd bu ñàkk teggin CA la ko defee te Mbaye Ndiaye si la ko ne bien nag c'est un bon débatteur c'est un intellectuel mais Amadou Ba du nu benn kon nag doom li ma la wax bind ko nag mm-hmm. kenn mënul tal réew mi que le ci élection yi. waaw parce que li wax bind ko nag. il y aura deux cent munici au moins deux cent municipalités où l'opposition ne ne se présentera pas. sept cent sept presque six cent et quelques mairies. nga war a meeting. war a être représenté. la su ko soit ku ko ko ah, si bureau yi la woot yi te ko ko représenté dix mille francs la. waaw nga bëgg nag par sept cent municipalités. le Sénégal compte plus de mille villages comment un parti qui vient de amul présentation fenn bëgg a participer sur sept cent communes euh, euh, communautés territoriales du am bu leen gañee it ñoo da leen sàcc indi fitna indi fitna loolu la da gis mu kanam maa ngi lay wax it ma xame état au plus tard le 10 décembre bii ñu jublu le président de la République sera en possession de l'ensemble des résultats prévisibles pour le 23 juin hmm. ah, ah les préfets les gouverneurs les sous-préfets la la la la les services de services de sécurité de l'armée les services de la les services de sécurité de la police vont faire des enquêtes. renseignement renseignement renseignement généraux vont donner les résultats à peu près. en ah, disant il, il, la perd, le Bokk Yaakaar est à tel, tel endroit, il perdra tel endroit, il sera en difficulté dans quel endroit. ah kon noonu lay demee. noonu lay demee nag am na ko jekk te li ma wax dama xam ne dama si bokkoon. Mhm. kon nan euh, si jóg nag. sëriñ Muntaga Mbàkke Muntaga. man nag Tijaan laa. wante ko fonk murid laa. dama xawoon Abdoulah Abdou euh, Sëriñ Fàllu Mbàkke porte la ma fii sama kër. xamoon Sëriñ Abdou Lahat xam tuuti sëriñ mun muntaga nag ah, ah, sëriñ muntaga basiru waa juróom laa xamam basiru mbakke Moussa mbakke doom ak Cheikh Mbakke junior sëtëm sëtëm sama xarit la mu ngi génn àddina en 1965 te sëriñ Touba jurul ku lu sëriñ Touba ñoom ñëpp ku nekk am nga sa style wate ko su mel ne mun muntaga mi bariwu aussi am na jàmm woote na jàmm am na njëriñ te te séddale la mu ngi wax nag waxtu gars yi seen gëm yàlla yëpp si ay wax la yem ak bugg a bugg ko intervenir mais lépp benn sëriñ mu leen def lu leen neexul muy tijaan yi muy murit yi muy laayeen yi muy ñëpp li sëriñ bi ñu ko teg fule parce que sëriñ Mountakha est très clair mbàq lay ñaanal mbàq la àndal wante léegi-léegi ay mbàkke mbàkke wax da ngay tiit léegi-léegi ay Cissé wax nga tiit léegi ay Niass wax nga tiit te ñoom it ñoom it aussi bu ñu yàpp ñun doon ànd ak ñoom ngir seeni maam ñoom defuñu fi dara seen barke maam la noo doxal keroog ma demee Lambaréné en 1970 Omar Bongo dañ leen ma yóbbu ma seeti un village de Pygmée ma dem fekk la ñuy football tàkkusaan jot may julli ñu yow yéeg sama kaw xamuñu luy julli ma jóge fu ñu ma Lambaréné à l'entrée de Lambaréné rek laa commencé wëcc en 1970 laa wax de mm-hmm. ñii tëdd fii ñii jaaxaan fii ñii dàmb fii man a man a kimaande loolu fii la indi woon sëriñ Touba mu ne ma waaw ma ne ko yaa soixante quinze ans mu ne ma waaw ma ne ko nii la nii mel ma ne c'était ma kaba def ñaari rakk tudd yàlla ne sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Touba yu pire la amul werante ndax la fa gis. ndax fa gis rek soixante quinze ans. après le départ de Serigne Touba dama wàccu dama wàccu ba dama yóbbu hôpital. te moom mu def fa ñaata diir. mu def mu def fa dëkk bi dafa mel ni àll àll. soit am cent am neuf cent soixante dix ñooñu nag ñoo tax tey ñu topp mbàkk mbàkk yi ñoo topp siis yi topp laay laay topp leen yëpp wante ñoom ñaar ñaar ko si wax da ngay sa dënn. bu na yow la la toppee ngir yow. te ñoom ñëwoon na seen preuve li Serigne Touba bind. Alaaji Maalik bind ko Limaamu lay bind ko Ablaay Ñas bind ko Xalifa Ñas bind ko Ibrahima Ñas bind ko tuxuloo bind ko taal taal yeeg baabay yooyu yëpp kenn bind ko si ñoom loolu noo wéyee ba tey te te jàng tey la gën a yomb bind tey lay gën a yomb mais nag seen baay liggéey na sa yàlla yàlla fayee leen ko ñoom kon bu doo wax nan bàyyi xel ne gënuñu nit ñi ndey gënuñu nit bàyyi seen maama def lu kenn lu deful yàlla fay ko lu mu fayewul kenn. Mm-hmm. léegi politique bi ñooña lan moo ci war a doon seen taxawaay. sëriñ si. waaw mënuñu si dara. mënuñu si dara lu wax rek. Touba Gële dégg li wax bi bi bi bi Macky Sall demee mm-hmm. li sëriñ Mountaga wax wan seetlu si la ñi ñi ñi contre ab contre Abdou Abdou Macky Sall wax lu leen neex ne def fi dara. sëriñ mun Mountakha wax na la xew yëpp ne ko dafa kontaan nga sama xol ma jàppale nga ma liggéeyal nga ma euh, Touba ba nu xëyee dina def fi dara il n'a rien fait te ñu kenn xulul ay mbàkk-mbàkk si si sa Tiwaawoon am ñoo xam ne ba tey la fa màkk def man mii ñaan dem dimanche di di def def boobu def boobu euh, fa nu war daje foofu daanaa dem ak sama baay màkk yi ñu bàyyi leen ñu bàyyi mu def fa loo xam ne kenn kenn mësu ko fa def te kenn du ko fa def wante ba tey siis yi am na ñoo xam ne mokk ñu danoo danoo xas màkki te kersa amul si nag parce que nit day am waa jur ma nag li may wax Macky Sall organisé wul partem kenn amul amul chef bu à part Macky yi c'est désert te it mënoon na ko réglé ku mu moom la rek ñuy topp sa ginnaaw moo yore teraanga yi Senghor ba mu bëggee jël Abdou juuf dafa xool ñëpp ñoo xam ne ko mun chene mag ñi ay màggiloo ay ay Badara Mbeng ay Dut Caam ñëpp mu dàqale waaw waaw woo ñëpp man mii si laa bokk jàppaleen ma Abdou Diouf dem jox bàyyi ko musul am du amati mukk article 35 muy le 31 décembre 1980 83 Abdou Diouf woote mu nekk un raz-de-marée Abdou Diouf mu bëggee dem dafa dàq ñëpp ñu mënoon seen tanoor ne tanoor a doy man mii ci ma woo si laa bokk mu ngi dund nag moom nag jigu ko waaw bu mu dàqee Moustapha Niass dàq Djibo sa la rey boppam Macky Sall nag warul kenn waxuma nag wut lu ko neex wutuma audience it wante kuy déglu rajo di juger objectivement liggéey il faut nga tàcc ko nem waaw bés boo ubbee rajo yi inauguration sur inauguration warul kenn di nga naa parti sax mu nga yëngatu maa ngi woon ak Aminata Mbengue Ndiaye pour waxtaan ak moom Abdoulaye ab Macky Sall wàccoon ak ñoom de bu ñu toppee xale yu ndaw yi dinañ yàqal loo xam ne dootuñu ko dabu mukk la mu digaalu yi ba tey waru ko tanoor la jël daf ko conseil jël am itamit def ko huit ans dans le gouvernement moom Mbaye Thiam ba tey Mbaye Thiam si gouvernement woo ko mu jox ko place bi Aminata jël jël Alioune def ko ministre. on a de quinze treize ou quinze députés. on a on a des conseils commerciaux on a a au au conseil on a partout des hommes. kon PS doxalin wi mu bëgg a def àndoo ci. gaw ma nit gaw ma dina ko def parce que Aminata Mbengue Ndiaye lu mu am fulla ko may lu mu am fayda may lu mu am ngoro ko may. te ñam na nguur mu ngi si bëgg a yàgg. war na xam na ne ab euh, euh, waa waa APR. siis te xamuñu seen bopp. le 23 juin 2011. erreur si am c' est pas le troisième euh, troisième mandat. c' est le ticket. ticket rek moo moo ko daal maa ngi toog it. kenn waxuma ko kenn nettali woo. mag Macky Sall a yendu. kenn tudd woon Macky Sall bokkul woon. da ngaa lim Idriss Seck Moustapha Niass Tanor ak domicile Amath Dansokho dara ngay léegi. fi fi fi ñu toog kër El Hadj Ousmane nii laa jatoog Macky Sall fa mu toog jógu fa ba 6 heures bi ne retiré nañ ticket bi mu jóg def la déclaration à la ñibbi bi gars dem euh, place de l'indépendance di coow bokk sa dafa dem Fouta dem da à travers Sénégal te il a eu 26 pour cent tout l'opposition réunie kootoon ko Abdoulaye ñoo ko fal mu am mu am pour cent mais 26 pour cent au premier tour. tey bu gars yi fàttali tous les arrondissements de sauf le plat sauf le POE. le 18 arrondissement moo ko gañ fi Khalifa Sall dëkk. premier Macky deuxième Abdoulaye Wade troisième Idrissa Seck quatrième Moustapha Niasse cinquième parti socialiste. les actifs sont là. dañ koy fatte wante Mimi Touré Mbaye Ndiaye ak ak Maître Wade. Mimi Touré nekk premier ministre. lu mu wuti dans une mairie d' arrondissement ba Dakar fi baatar leen toroxal leen sur 18 19 euh, arrondissement yi jël 18 yi yaa koy yof ki assuré sàpp boobu Khalifa ak Macky jotewuñ dara wante boo ne Mbaye Ndiaye mu ñoo jël mairie Dakar nga ne maire Wala ñoo jël mairie Dakar mu muy turande bëgg a mairie Dakar te c'est des c'est c'est des c'est des allumeurs de feu et ce ne sont pas des pompiers. loolu moo fi xew. te te Macky Sall it euh, ak loo ko mënta waxal mun naa politique. boo xoolee région mu nekk. teranga yi bari na fa lool te nee na nag ku ko ñàkk mu dàq la. te ko kay bu ko yàq ñii ñii nag. mu ngi ba yàq comment. Euh, makk Sall. dafa wax ne j'ai le dossier que j'ai mis sous le coude dégg ko xam nga kañ la ko wax un an son élection kon dossier bu fekk la wax pourquoi on parle plus du festival mondial des arts nègres yéen journalistes yi loo ko wax ah. pourquoi depuis depuis depuis depuis 2012 Singeli n'a pas mis les pieds au Sénégal vous n'en parlez pas Khalifa Sall moom laa gën a min Macky mosuma ko laaj defal daara man di waxul ne deful dafa ne dama fekk ñuy def ma def ah ci caisse d'avance bi. waaw si caisse d'avance dama xam ñëpp xam nañu jubul waaye dama ko dama ko fekk continuer di ko def. waaw loolu kenn ko wax. kon réew doom képp kuy am conscience. di nga parce que am y parmi les acteurs politiques. aussi bien au niveau de de de, de la majorité. mais surtout au niveau de l'opposition man xaw ma Doudou Ka nous ne sommes pas en campagne électorale. Sonko n'est pas candidat encore à la mairie de de de Kaolack l'UNECOA est en face de chez Doudou Ka en face bu ñëwee ak état major su kaay jël seen précaution mën na jóg UNECOA taal ko Doudou Ka te dara du leen fekk bu fekkoon dëgg la wax bu nu invité UNECOA bu bu si période bi ñu ñu defaree ko beneen yoon parce que luy defar moo gën lu yàq. te it yëpp la fekk. Casamance. fële Senghor wax ne le Mali va éclater. keroog maag moom a ànd. chez Carvalho le maire de Ziguinchor la ko waxee. man mii maa doon wax mu ne ma jeune homme c' est pas grave c' est c' est y avait un conflit à Kolda entre Yoro Kandé et Demba Koïta. vous savez que le Mali va éclater ma ne ah ñëpp a ngi chef d' major le général Fall de Samourou Dior de Bamako Modou ko lui envoie télégramme injurieux. il veut nous recoloniser. il au mois de juillet le 19 août c'est la fédération Mali tas. un mois après au petit matin ñi sa gaar ba yóbbu leen jàmm ne jàpp jàmm ne sam ak Senghor te li gën a garaaw li Senghor def mooy le mooy le 17 décembre bal tàkkul Demba Diop moo fa bousculé Alkali Diouf Alkali Diouf moom député maire yi Foundiougne police jàpp mu jàpp Ibrahima ab Ablaye Fone ak Maguette Lo yóbbu leen police centrale looloo xew on parle plus de te doom ba fekkoon le procès de Dia Ousmane Camara Ousmane Goundiam Ablaye Wade Badantère monsi monseigneur Thiandou général Amadou Fall colonel lieutenant colonel de Momar Gari nga xam ne nous sommes un pays de tradition nous sommes un pays de jom et d'honneur te xay loolu bëgg a baf yi amatuñu kilifa réseaux sociaux di saaga ñëpp ñu ngi d'accord di ko di ko liir it xam nga le 23 juin lu xew xeeroo Moustapha Niass yore xam nu mu demee fi mu taxaw fi nu taxaw leen sànni xeex xeeroo ñëw ba si tànki Moustapha Niass Moustapha far ko rek xeer bu Moussa Niass daf ko àttal ak Moussa ku moo sànni. ah dañ ko koo sànni. dana koo sànni mu yem si tànkam mu sëgg a for ko rek loolu rek moo xew ñu sànni tànkam mu li ma la waxoon affaire yi Macky sal ne il a mis le coude. c' est dossier yi mu fekk sur place def le coude. boo demee boo demee ba tey fa la Cheikh Cheikh Douta bagages yi bagages yi. social mondial des années mu nga sa magasin ya ko koko yi. kooku yéen kooku yéen defoon te kenn gisatu ko plus de deux milliards la ana bato ya ana village yoo koy dawa tabax les par n'en parlent pas Aminata Mbengue Ndiaye moom daf dul nit ci caaxaan du nit ci caaxaan damay wax damay wax sax ni des ne nit ci baatin la ku gis fu mu jaar ak fi mu egsi nga xam ne am am lu si xam nga doom parti bii ñu nekk muy parti socialiste kenn rek moo si gën moo si gën yàgg ku ñu wax Massamba Ñang dëkk Ndar ndeta mbayee jabaram il est malade couché waxatul dematul bind naa ñëpp wax ne ku liggéey liggéey bu mu liggéey nekk adjoint au maire de Saint-Louis nekk député nekk directeur de pendant longtemps directeur de la rajo dem ba nekk le plus ancien du parti il a été au congrès de 54 à Louga du MJB MJBPS le deuxième congrès a eu lieu en 58 à Thiès ñi ñi ñi fa nekkoon délégué par leur pays par leur euh, région kenn rek moo si dund ak man ku no Assane Masson Assane ak man jeex na. man nag xaw ma député PS yi. xaw ma député xaw ma mairie PS yi. Papa Seck xam 15 ans gisuma ko. santi añ la santi añ affaire la sax wante bàyyi bàyyi sama bàyyi la ko tuddee. xaw ma xaw ma bureau yi xaw ma yëpp wante réew mi nag la dogal waxoon ma koy wax ba kër Moussoula Ndiaye mi ngi toog dogal dafa ne il s'est fait une idée de la France ñu ne ko laquelle idée mu ne je ne la France que dans la grandeur. de Gaulle la ko wax wax na yéen ne le poste le plus important dans un pays c'est celui de ministre qui exige de l'ensemble de ses ministres d'aller solliciter le suffrage des, des, des citoyens sauf André Malraux da risque ku nekk député wala ministre dix ans nekk maire dix ans te xëccoo beneen poste mel ni ni ñun as te géej gii ba dëkk maire yi ñii def nañ dix huit ans ñii def douze ans tey son candidat encore waa ana seen nawle yi. kon xëccoo yooyu bokk na ci liy indi fitna yenn saay. ankay frustration baaxul te kenn kenn mënul nekkal ñëpp te politique xam lu Maurice Guèye daan wax. Mm. mooy def loo wax ak wax loo dul def. Mm. te nañ bàyyi transhumance transhumance amul dañu jàngul xamuñu politique jànguñu. xamuñu politique transversale amul politique société d'intérêt la da nga ñëw a fal su ma faloo fal la soo faloo falu ma nag ma bàyyi la uti keneen su ma àndee am lu muy wut aw ko ba nga ba nga dem keneen am ko mu jox ma ko du ma ko jël. loolooy politique. mooy politique waaw. Victorino. dafa ne entre parler et ma il fallait mettre un trait. parler ma. loolu loolu Victorino wax. fi mu toll xale yàq nañ ko de. ku si am diplôme. le savoir-faire et le le savoir le savoir et le a faire Un des meilleurs ministres de la jeunesse. Il s'appelle Racine Ndiaye. C'est le c'est le moins diplômé. mais daf daan laajte daan waxtaan dafaan échange. yéen nag journaliste yi. lu fi yàqu yéen la. comment un émissaire public chaque jour le matin ou le soir tu es la rajo ñëpp di loo wax muy njaaxum àgg nañ si diw diw fas nañ ko. diw ak diw papa ma àgg si moom diw nangam nangam nga dem ba nag lool lool chaque soir loolu la gars xaar nga di la di ree nga ne candidat maire la aviseur public la nag ñoom mais parce que ils ont la rajo ki n'est pas contrôlée da nga déglu léegi benn rajo match match football am ñu ne Jàmbaar ak Jàmbaar a gagné par deux un benn jóg dem sport bi gën ne Jàmbaar a gagné par quatre à deux te kenn du rectifier on donne pendant deux heures temps de, des jeunes filles et des garçons virulents ñu jël ñu jël Macky sal wala ñu jël ku leen neex toroxal la te du te dara wóoru si de yàq sa der kenn du wax Bougane Gueye daal sama doom dégg naa moom la àndal nee na xaritam la ndax ma nag je suis un démocrate sama yoon newu wante waxal moom de fii mu jëm sampul kër contre ma ko nag c'est un garçon de grande valeur quand il a quitté metti woon dama lool wan lii moo liggéey ba ñëpp xam ko boo ko bàyyi def fi politique ñeme ñu ma ko de su su su ma su baayam muy sama doom du def ni mu defee te nag ay xale yu ndaw la ànd bu jox leen rajo bi ñu koy jay rek xam nga Che Guevara yow. waaw dégg nañ ko. nga dégg rek xam nga suma Kay Keita. moo nekk moo mooy moo moo la doon wu Kenya. xam nga combien de momo momo la. Mm. raasam. Mm. cinq cent mille momo la rey. dé dégg ko xam nga im ñobbe waa Cameroun la dañ ko possédé moo jëkk ko indépendance Cameroun ba Cameroun am na indépendance xam nga Ayit Ahmed c'est le trésorier des FLN algérien il a été assassiné à Genève Ben Bella les cinq qui ont déclenché la guerre d'Algérie la bokk Bouteflika Bouteflika mii dee barki dans l'anonymat il a abandonné ses, ses ses études de droit pour être le ministre des Affaires étrangères de de FLN en en en clandestin clandestin il est mort il n'a même pas eu les honneurs de la nation. Gamal Abdel Nasser keroog mu ba mu de Suez Angleterre ak France du Soudan. il a résisté Moubarak moo bo moo moo bombardé israélien yi il est mort presque en prison le peuple oublie vite le peuple ne se parle contre ses ses véritables ana Lat Joor ban doomi Lat Joor a at dee na ba ñu ñu ngeen di faytal Lat hmm? Bruno Diatta Pape Bouba Diop Jules Bocandé dëj bi ñu leen dëj au nom de la nation Lamine Gueye amu ko Amadou Sédia Présence amu ko Daouda Sow amu ko Habib Thiam amu ko André Petawe amu ko Momar Tall Cissé amu ko Babacar Ba amu gens qui ont donné à l'indépendance, à Sénégal son indépendance, n'ont pas eu de, de funérailles comme ça. li tax ñu am ko parce que ils ont des tout court on n'a jamais rien gagné mosuñu une benn trophée mais ils ont des amis journalistes ñu koy mm. suba ngoon di ko wax te comme que Moustapha Niass qui fut mon ami Il ne l'est plus nag pourquoi je ne sais pas il a changé dafa dafa ma dans l'intimité bureau ne ma xam nga gouvernement lu ma ragal ma naa mënuma rumeur il y a cinquante ans boobu Moustapha Niass ñiy wax sax ñiy wax dara si ma ne ko xamul Moustapha Niass bu ko mag bu jubootuwul bu ëllëgee ma jox ko démission geddekat la ku am jom la ku am jikko la ba su jiwoon ak Macky ëllëg ma jox ko daal la ko démission ñibbi ñibbi kër ma jabal toog fa jàpp jàmbur man nag am na yu ma neexul si moom wante am na yu ma neex si moom bind naa ko beneen lettre dama beneen lettre moom Moustapha Niass mu ngi dundal di ma dégg nag dafa ne ma Ousmane lettre bi ma bind manque sama cartable su ma wéetee di ko liir xam nga le ministre le premier ministre Lamine Loum. Mamadou Lamine Loum. Abdou ko nommé ministre du budget mu ne comme c'est une toge que je porte xam nga luy toge. gilet hmm. yooyu amul pourtant amul dara làbbee di ko sol. nga xam ne booy futti danaa ni rek mu deñ ma ma seeti ko ne ko tooñ nga Abdou Diouf de wax lii ma la wax si dogal poste ministre. sa yaay bu taxaw ñu lay fi ñu ñu lay musical day bëgg ab riw dégg la responsabilité donc nag c'est comme tout ce que tu portes c'est pas normal mu ne mu ne secrétaire ne avec Kumba Gawlo bu ñëwee ne seet sama directeur cabinet ne ma naan waxtaan ma ne ko euh, ëllëg si bi dara jomb la boobu ministre si rek la woon de moo tax ba ko nommé premier ministre man la jëkka woo ba tey je en communication avec lui Guédiawaye Guissiya le vendredi ba na suba noo woote en 2000 des fois nag on téléphone on se parle kon nag doom lii ma wax nag doon sax ngeen génn ko entièrement te li ma ngeen gis nag le 23 janvier au soir képp ku si nekk si nguur gi wool say mbokk say xarit ak say dëkkandoo ñu taxaw sa buntu kër immanquablement les gens n'accepteront jamais la défaite et ils seront battus kon daal fitna ngay séentu ci élection yooyu. dem ba méttee métti di mu ngi suñu kanam soreetul ñaari weer si des. di ne sama maam ju sama sama maam ju bari jox wax ja wax na ma ko. parce que ñoom. li ñu bëgg mooy taal réew mi mu am coow. armée jël le pouvoir te armée bi du jël pouvoir pour le moment non. d'accord ñoom ni ñuy defee politique tey ñëwoon démba ñoom sengoor ak ñoom Mamadou Dia euh, nii lañ daan doxale déedéet xaw xaw politique ni mu demee ci ci euh, am. Hmm. daan nañ jàppante de yenn saay lool le 16 décembre. la veille du 17 décembre bi indi ci affaire yi ku muy Moustapha Cissé Ousmane Ngom Théophile Shams Valdiodio Ndiaye da ngay waar sa c'est commune arène mais andi nawle woon la Senghor Lamine Gueye mu ñëwee indiwaale Senghor ni da koy fal dafa woo magi lébu yi xam nga lébu yow Lamine Gueye la presque yóbbu ko góorgóorloo wax Malick Ndiir Rue Escarpé angle Lamine boo koy wax léegi bu njëkk nag boo wax da nga wax rue rue rue rue léegi la wax seen ndooy angle angle Lamine bu njëkk nag Rue Escarpé angle Maginot ko bu ko jot ci seen bët du ñeent jëlal ji Momar Gueye Lamine Gueye bañ parce que la manifeste le bi interdit kii la bokkoon Senghor au de la guerre en 45 def ñu woote premier collège deuxième collège premier collège mooy les citoyens nés à Gorée Dakar Rufisque et saint deuxième collège mooy les autres Lamine Gueye dem assemblée def la loi Lamine Gueye ñëpp égalité muy 46 ñu fal Senghor 46 48 mu bàyyi Senghor Senghor bàyyi ko ba Senghor di dem booba Senghor moom ñëpp a Ibrahima Seydou Ndaw Mamadou Dia Boissier Palan Guillabert benn benn Guillabert cousin am la e, teew ki Edouard Diatta Mori Tall e, Mori Tall e, Amadou Seye Dia ñooñu moom unité neuf ànd ànd naw la nag Senghor falu def ànd ay nawleem Abdou il a fait l'école de la France Outre-mer bi ñu koy fal bi ñu fal premier ministre fekk na en 61 la nommé le gouverneur xam nga ko defal gouverneur Dakar Jean Collin administrateur de la France Outre-mer Thiès Christian Valentin administrateur de la France d'outre-mer Diourbel Ibrahima Tall administrateur de la France d'outre-mer Saint-Louis Kabou Daniel administrateur de la France d'outre-mer Tambacounda Babacar Ba administrateur de la France d'outre-mer Ziguinchor Ibrahima Sow administrateur de la France d'outre-mer à Kaolack René Ndiaye Goro Goro Senghor la il a fait deux mois ñu remplace ko jël Abdou Diouf administrateur de la France sept administrateur dans le gouvernement actuel nga il n'y a plus d'administrateurs civils mm-hmm. des gens qui sont formés pour diriger le pays pour diriger l'administration il y a de Ablaye Wade à nos jours il y a un ou deux administrateurs civils mm-hmm. actuellement il y a aucun administrateur civil xam xam nga ban koor a ëpp gouvernement Sénégal ba ba la faloog léegi mm. les d'université si mm. ministre mm. ñoo si administrateur yi topp si avocat yi topp si voilà tax quand les gens parlent de médiocrité des gens qui sont capables non amul loolu ñëpp ils sont capables ñoo ngi ñoom ak bokk école yu ñu génne mais nag dégg naa ko daam Abdoulaye Diouf pas capable te dara doo jël rajo bi toroxal gor yi te yéen journaliste yi vous parce que am na ko ko wax doo ko génne mbaa nga coupé ko mbaa ko tontu ko. waaw ah, ndax foofu la fitna bi di commencé. waaw wax rëcc na tey ñaar dina wax leen wóor benn waay mi wax ne wi wiyal na sama doom ñu ne jiwa ko wiyal ñu ne ko wiyal na ko man daal euh, bëgg naa à chaque événement danga may seet tey li ma la wax nga may def parce que man bugguma di wax ñu may kuppi parce que je sais prendre mes au soir de ma vie maam benn tànk si bàmmeel ku dem mag dem ku dewul mag dem yàlla na yéex na kenn bëggul de ku am looy joxe denc ko ma des yàlla El Hadj Malick sama sëriñ dafa ne ku ko waar dund ba déwén mu waatal di lekk ba déwén yéen ay xale ngeen fekk leen yu bari xamu leen yu bari te ñëpp la nag ñuy liggéey léegi ay xale ay xale yu def seen rajo yi des fois boo déggee rajo man sax léegi dem yu bari damay fay sama rajo am na yoo xam ne émission xam ne dootuma ko déglu parce que góor du ndaw leen te bu jëkk lu la xew na si kër yi war na léegi yaa ngi dëkk Sacré-Cœur kër dëkk fii mii ci kër dëkk fu nekk dañ tox wante li xew si famille yi mun ko nettali àddina tukki mais sutura rek daan woo famille woo sa bàjjen woo sa nijaay jubale leen wóor na moo leen xalifa sàll mii wu Racine Ndiaye doon dund Kabir Mbodj nekk si dooleem Mbaye Jacques ànd ak parti bi Boubacar Seck ànd ak parti bi Ibrahima Boye ànd ak parti bi du tàggu du tàggu mukk mukk mukk mukk mukk ak Macky Sall ba ñu dox ko parce que du intérêt Khalifa Sall te xale yi xale lan Khalifa Sall liste bi yuy amul la si kenn moom Idrissa Sam ñaar bàyyi na ko ga ñett Cheikh Bamba Dièye ñaar mu jeex Cheikh Bamba Dièye ñett juróom-ñaar député ñett gàkku ñaar Serigne Bamba ñaar Idrissa Seck waaw mu bëgg a politique xeex te moom mag sa jotu dara te it homme politique il faut mu leen nax Khalifa Sall du dara lu PS Sonko bu ma Sonko bu ma inventé man nag xaw ma je n'ai rien contre Sonko de mais je suis pour la vérité nag ma Khalifa Sall la ànd lu mu waxoon rupture ana rupture ba Khalifa Sall a fait quarante ans de parti socialiste il a fallu mu xuloog Macky pour tàgg pour génn sa génn parti socialiste mais tey ñoom ñaar ay collaboré kon gëmuñu dara te intellectuel nag d'une manière générale gëmuñu dara de maa intellectuel yëpp leen seen bopp rek parce que bureau climatisé yi oto yu rafet yi kër yu rafet yi pour du pas pour le paysans c'est pour le intellectuels. ñoom ñëpp ci lañ bëgg. ah <laughs> man ñoom ñëpp lañ bëgg. maa lox loolu. <laughs> te te te euh, Thiam pour terminer. nan ma ko homme bu am xaalis nan ma ko wax Cissé Dia nan ma wax li mu bàyyi Maguette Lo nan wax li mu bàyyi Assane Seck nan wax li mu bàyyi Alioune Badara Mbengue nan wax mu bàyyi Wal Jooy nan li mu bàyyi Racine Ndiaye nan wax mu bàyyi ñi ma tudd nag ñu baal ma kontaruma leen parce que xaw ma mais dama wax dëgg nit day woote jàmm jàmm fekk ko sa te Lamine Diack sama xarit waxoon na Abdoulaye wàdd si ak diggante Karim Wade ak président la la ko tu verras bien que le Sénégal n'est pas le Congo n'est pas le le le, le Gabon Abdoulaye ne doon Karim Wade ba tey moo fay nekk wante. mag day xër si doom te doom si dit la dafa sax si xol te ku foogoon Ablaye Wade day ànd ak Sonko moo tax politique ñu Ablaye Wade Karim n'est pas fait pour être un numéro deux Karim il est fait pour être un numéro un j'ai bien travaillé dénk ko ministère de la du ciel et de la terre ngeen def def def def def euh, loo xam ne ëllëg si biir fu Xalifa Sall bokk Sonko bokk fu ay Sall Sall Abdou Mbaye dinañ seen bopp Abdou Mbaye mii sama doom la digaloog moom dara stage ouvrier si man la ko def mu ngi may dégg nag laaj ma ko audience mu su ko gis wante Kéba Mbaye sama mag la woon bu Kéba Mbaye doon dund it lii mu def du ko def du ko nangu ba ko Ablaye Abdou Abdou Wade ji Ablaye Wade ba ko Abdou euh, Macky Sall jëlee laa bind lettre Macky Sall Macky Sall nga may dégg Mor Ngom a ngi may dégg Mor Ngom moom directeur cabinet mu ngi may dégg ma ne ko lu nga def tegaloo ko fenn de nommé ab nommé comme premier ministre Abdou Mbaye te di nga ko di nga ko rëccu bu bu bu yàlla may dund. Mor Ngom ma tontu au nom de mu ngi may dégg nag bu dul dëgg na ma wax maa ngi samay archive le président de la République a pris a pris propos fa la yem ak mu ngi nii lu Macky dégg su la ko naqari moo ko wax te Macky aurait pu l'éviter ni mu turee sama tëj ko dix ans de prison Ibrahima Sarr wal jooju ministre de l'intérieur ñu génn déglu wax déglu wax Senghor mos nga dégg ñu xas Senghor ñoom. waaw ñii nag ki am tara génne rek ñu mel ne ñu jàpp waaw et puis le pays leur fait confiance di di d'état donc léegi la xaw ci kon daal euh, maa ngi lay gërëmaat. man nag taalibe tijaan laa bu wér si man nag wante man du ma taalibe tarbiya déedéet xaw ma ko sax du ma mukk te dégg ko sama sëriñ Babacar bu yàlla ak yonte bi yeeg sama ñaari waajur loolu laa gëm gëm naa yi ne sàmm naa sama bopp yooyu laay waxee it kenn dox ba tax yow si medd kenn du doom fekk ma kës kër ma toog may lekk mbaa may waxtaan amee lu ma kenn kenn bor su ma demontee kenn du ma fayeeku xanaa ba ma nekkee administration gouvernement Senghor woo ma dénk ma société bu ma yëgul tinul su amee bor fayit ñu ne ma koy fay ba tey maa ngi fay SDR hmm? waaw waaw te ñoo ma ñoo ma si dugal de ba moo nekk ministre des finances Amadou Sow nekk directeur USB e Abdou Diouf nekk premier ministre e. il va créer une nouvelle race d'hommes d'affaires riches que que Sow mii c'est si bokk man ko xeex ba ba maître maa fay ñi may fayeeku ba tey depuis vingt ans maa ngi fay te man mag la retraité man ñu may fay ko ba tey de bind naa Macky Sall tontuwul bind naa ministre des finances tontuwul dénk naa ko yàlla xëy na bu fi jógee ku ñëw ku baal ma ko fekk maa ngi dund. loolu nag réew mi nag ci euh, am yàlla fi yàlla def jàmm. lu waaye xam na sa dugg. Cheikh Tidiane Sy Maktoum sama mag nee na ma sëriñ bi ko war a sang te sang bi koy sang nag àggu so wante maa sang jana bala war doon te chet yàlla lu mu la wax ko xel wax na ma yu bari yoo xam ne dix ans nee na l'islam bala maa avancé il a déjà cinquante ñu ne jàkk sang professeur sang ma koy si jàkk sang docteur sang ma koy si ay intellectuel tey moo am am na jàkk yoo xam ne danoo boole alxuraan ak français boo xam ne kenn mënu si dara kon nag réew mi daal eh, Thiam maa ngi lay gërëmaat nag parce que yow da nga may dundal parce que li ma xam Thomas j'ai perdu la lumière des yeux je fais très souvent de coq à l'âne parce que bu amul méthode d'intervention mun ko bind di xool li ngay wax da ngay jóg fële dal fële dal fële wante maa ngi si sant yàlla bu baax parce que moom dafa gën metti te mettiwul mm-hmm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mm-hmm.